ndax tay comme niko nit ñi waxé du bësu wax bësu jëf la liggéey lañuy def té ci lañuy continuer inshallah jusqu'au soir du 24 février 2019 élire au premier tour le président Macky Sall à 55 inshallah donc suma ma introduire lolu ma ngi nuyu. ñëpp ñi fi teew di dalal jàmm sunu président sunu ministre d'État maître Ousmane Ngom ndax ku gis nen ne nen a ngi man duma jeex kenn di ko wuti mais li may liggéey la nit ñi di gis di ñëw

ñu leen di côtoyer bu ko defee ñu gën a xam fu ñuy teg suñu tànk lan la fan lañ bëgg dem parce que fi ñu bëgg a dem dañu bëgg dem fu sori incha allah yàlla ñu ko yàlla defal ñu koy remercier bu baax a baax a baax a baax ci teewaay bi mu teew géejawaay ndax son programme est téléchargé mu woo ma lundi ne ma jeudi dama lay seet si ni mu ko waxee noonu la ko defee mako ci encore di sante bu baaxa baaxa baax di nuyo toute sa délégation aussi di ci tek nuyo bi loxo euh, son coordinateur Omar Fay nga xam mom tamit mo jël sama loxo tek ko ci met Ousmane Ngom donc mako ci féliciter encore bu baaxa baaxa baaxa baax en plus di gërëm di sante encore taxawayu mouvement jigen gunge jigen bu kër Mbay Fall ndax vraiment liñu waxone liñu waxone depuis ndax ñom liñu waxone depuis sunu dajé kër Mbay Fall ba légui mom lañuy jëfé bax ngawah du wessu nga wax sa baxu morom ñom ñi né man dama bax ay qualité yi ñu wax si ñom la njëkkee ndax ñom ay jigen lañu mat 203 personnes ñu gis man mi nga tekki ne tekkiwuguma dara ñu ne ma yow lañu andal fo andal, dem yow lañuy andal nga wo ñu guddi nga wo ñu bëccëg fo ñu yow lañu andal néna nee nak bo leen sama tank man duma téggi sama tank te fu mu nekk ni président Macky Sall lañu wolu ligéyal ko ndax suba ñëpp soxaliku ñëpp jëm kanam incha allah loolu la ñuy ñaan mbooloo mi yëpp moom la ñuy ñaan soir du 24 février soir du 24 février loolu la ñu bëgg loolu am incha allah te loolu la ñuy jëfee guddi ak bëccëg donc pour bañ a aussi ñu ngi remercier encore le maire Baïdy sey léegi la fi jógee son programme est trop chargé xaar na la tuuti looloo tax mais bàyyi na fi message même le sous coordonnateur monsieur Abdou Sen les saluer encore la présence de notre euh, doyen Barawan dans la coalition c'est le conseil aussi du maire en tant que charge di saluer aussi Mme Khady hein, euh, elle est socialiste elle est toujours dans la coalition Bonne yakar et c'est notre coordonnatrice qui nous guide qui nous donne beaucoup de faveurs dans la coalition du mouvement euh, de la grande coalition donc je ne encore di gërëm ñëpp di leen wax ne ne ku ñëw and ak met Ousmane Ngom do tit do ragal ndax ku xam politique te fu mu teg tankam fofu la ñun ñi nga and ak donc le maire Bédi ici dans la coalition de que Lay and liggéey

kon nag ki may beral nuyoo di ko félicité moo di suma rakk suma xarit Abdoul Aziz Raymond Curtis euh, Abdoul Aziz moom ak euh, moom mouvement am yëpp ak membre mouvement am yëpp MJAD mouvement des jeunes action pour le développement kontaan naa ci seen mobilisation dama fi mënul woon bañ a jaar rek mais xam ni fii mokk na ba pare mais fi ba ngeen ni Abdou Aziz weetul amna Amna fumu Nilenko, coordonnateur national waxe Omar Faye tout à l'heure euh, maa ngi nuyu membre coalition bi coalition Benno Bokk yakar la grande coalition de la majorité présidentielle Degna Boubach, bu coordonnateur Abdou Sen ah comme seen la sant defoon naa ni dafa daal di wax rek daw wuti reer quoi toogal rek reer baa ngi ñëw ah. waaw euh, Abdou Sène donc euh, kontaan naa bu baax ci kàddu yi nga fi yëkkati ma lay yóbbante ci maire euh, di Seye ak maire bi nga xam ni mooy maire ville de Guédiawaye suma rak Alioune Sall ak waa Guédiawaye yëpp maa ngi nuyu également Aïssatou mi nga xam la coronatrice des femmes de la coalition du nuyu le doyen le doyen Wan maa ngi koy nuyu ak délégation bi ngeen àndal yëpp. Euh, kontaan na trop nii ngeen ñëwee taxaw ci suñu rak Abdou Aziz ak euh, mouvement MJAD Mangi ngi nuyu aussi suma jigen Khadital, Bou bu gunge jigen kontaan naa trop ci kàddu yi nga fi yëkkati ah, ni ma ko waxee mënoon naa bañ a ñëw parce que xam naa ni fii mokk na puisque déjà Raymond ni ñu xamante ah yàlla moo ko defar jaarale ko ci loxo Omar Faye muy suma coordonnateur national mu ñëw ci jamono boo xam ni jamono bu am importance la parce que nous avons donné un congrès pour investir le candidat Macky Sall di ko def stade Demba Diop mu fait. fekkee jamono boobu ma ni ko da amul xaar amul na ah mu nit ku Je man tey jii ñëw ànd ak yéen carte parti ba ma yore woon mi ngi nii teg naa ko mouvement bi nga xamni mom la laa yore solo ko pour que andré ak yow liguey pour le président Macky Sall. congrès ba ba mu ñëwee itam ni mu ko waxé won non la ko défé dafa ñëw ak mouvement am def mobilisation bu am solo defe ni ku euh, ci internet bi YouTube congrès gis nañu stade ah mobilisation devant le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Moufekeko, ko mobilisation kon vous avez déjà la reconnaissance nationale de l'État, du chef de l'État, de son Premier ministre et de l'ensemble donc de la majorité présidentielle nous nous avons ngeen une coalition de liggéey la ci Géejawaay coordonnateur Abdou Sen waxee C'est rek que nous di ñaan continuer parce que l'unité, le rassemblement l'union, union Bobu, moo ñuy may pour bu na table parce que là ñu jëm defe Nous ni mbir yi ba gis président Macky bilan bi mu am nga xamni Sénégal yépp nañ ci ni ko Omar bilan bi gis daj dem gis nga ko fo wala nga gis bilan bi laal na ko mu di jigéen ñi mu personne du troisième âge wala mu di baykat bi wala mu di pêcheur wala mu di éleveur ñom ñep catégorie sociale bo dem Macky Sall am lu mu la defal ba nga gis yokuté ci sa kanam té lolu néna tambali rek la deuxième mandat bi ci lay fas accélérer pour que ñu gëna jëm ca kanam li ci dess modi amna vision bu lèr bo xamni ñep gis nañ ko jusqu'en 2035 te vision boobu am na financement ba pare ban candidat moo fa amagum programme wala boo am financement amul ñetteel bi moo di foo dem ci Sénégal nit ñaa ngi fàq yépp wuti Macky sal am na candidat yu sonn yoo xam ni xoox nañu déjà mënatuñu sax dox ñu ngi kii alors gis ngeen Macky Mom, plus campagne bi di plus vous êtes en forme il est en pleine forme il y a comme Balla Gaye koy def 2-0 a leen di door incha alors 2-0. alors Lolu, moo tax nga xam ah combat bi jeex ba ah, le 24 février gars yi ah, avant 18 h et je voudrais féliciter votre MC on nous encore euh, qui est un excellent maître de cérémonie et qui a fait du good job il a fait du bon travail c'est un jeune donc euh, sur qui on peut compter à l'image de Raymond je pense que c'est des jeunes de qualité qui sont au niveau de MJAD avec son coordonnateur qui a pris la parole tout à l'heure ça Sall <laughs> maa je di féliciter pour donc à euh, inchallah le 24 février Mirmi, l'air ne va pas ça. Mais ça mais pour 24 février l'air l'air pas l'air, l'air leer naññi naññi na midi na midi a 10 heures

avons encadré magni et ak nous avons voté ñëpp ba ci bureau de vote yi ñu aidé len wan len ñu bulletin pour voter pour le président Macky Sall comme ça victoire éclatante la ñuy am mais nous avons 65% ñu dem ba

kon ñun loolu lu ñu soxal la dañu bëgg kenn ku nekk ci yéen gis boppam ci liggéey bi nga xam ni ñu ngi koy liggéey ak le président Macky Sall maanaam ñu fexe ba encadrer jeunes yi ak jigéen ñi former leen mais aussi ñu ubbi leen buntu financement yi pour que ñu am ay financement taxawal seen ay projet mën a demal seen bopp moo tax ñun politique de développement la ñuy def defatuñu politique politicienne yooyu politique de développement politique de développement nag mooy nga fexe ba kenn ku nekk gis boppam ci li nga xam ni ñu ngi ci yëngatu loolu nag liy tax muy am moo di ñu former leen encadrer leen wan leen buntu financement yi te loolu coordonnateur Omar Faye ci lay liggéey boobu ba léegi groupement de jeunes ak yu femmes yëpp financé